dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT news. dafa am fan yi benn polémique boo xam ne dafa daal di juddu ñeel ay kàddu yu Cheikh Yérim Seck. boroom livre ba mu bindoon jur coow lu bëree bari ci dëkk bi jural ko coow moom itam ndax sax ñi ngi naan tas na ab këram loolu lañ bëgg a dikk polémique bi nag nekkul leen lu dul kàddu yi nga xam ne jot na koo yëkkati jëmale ko ci le président Ousmane Sonko ne kii di Ousmane Sonko waxum Ousmane Sonko mu sell bi ñu koy daal di dàkkantalee dañ koo war a bàyyi ndax amul kenn ku sell koo xam ni mës naa développer ab réewam ci loolu lañ bëgg àddu indi ci ay leeral ngir Cheikh Yérim sekk xam boobu lépp tur fan la jógee ak lan moo waral ñu koy dàkkantale Ousmane sunkoo ak itam moom li mu wax ndax réellement mooy dëgg mooy li am wala boog il s'est trompé comme il a tendance à le faire le plus souvent moom Cheikh Yérim Seck daf ne Ousmane Sonko mu sell mi dañ ko war a dakkal di ko ko woowee loolu dafa am fu mu jógee nekkul ne Ousmane Sonko moo ko tuddee boppam fan yére gis nañ Cheikh Bara Ndiaye génn na di ci daal di addu Ousmane Sonko tuddeewul boppam ku sell ki moom jógul taxaw ne gone yi da leen ma woowee Ousmane mu sell mi xale yi ñoo dem ba xam ne kii kat ku sell la ku baax la ku jub la te teguñu ko ci fanatisme teguñu ko ci yaama neex dañ koo teg ci ay mbir yoo xam ne ay fee la yu Ousmane Sonko def ñu daal di ne kii kat ku baax la ku jub la ku set la ku sell la kon war nañ koo mën a woowee Ousmane Sonko mu sell mi comme niñ koy déggee ci réseaux sociaux yi sellte googu nag nekkul sellte wu diine nekkul itam ne moom dañ koy méngale ak sëriñ wala bokk ab waliyu yàlla dafa nekk tout simplement selleté par rapport ak moom lañ ko dénkoon mu ko doon gérer laata muy dugg ci lu jëm ci wàllum politique ci fàttali bu gàtt Ousmane Sonko dafa nekkoon impôt et domaine nekkoon fa inspecteur principal liggéey fa fukki at ak juróom ci fukki at ak juróom yooyu ba mu fa jógee ba tey jii amul dërëm boo xam ni état du Sénégal génnee na ko ne lii moom moo ko luubal amul itam benn centimètre carré boo xam ne nee nañ usmaan Sonko daal dina koy amee ci ab ger wala boog mu daal di koy amee ci kenn koo xam ni daf ko daal di trionde loolu moo waral ñu naan kaan usmaan mu sell mi am itam yeneen yoo xam ni dal di nay dikk ay seede yoo xam ni ay nit ñu mu jot a jëflanteel ci liggéeyam ñoom ñoo ko dal di def benn ci ñam bokkaloon impôt et domaine ñaar ci ñam jot a contrôlé ñëpp amul kenn koo xam ni mën naa taxaw ne Ousmane Sonko mës naa lekk sama dërëm par rapport ak lu ñu ma doon dal di ger am itam ay nit ñoo xam ni pertoon nañ seeni suuf moom Ousmane Sonko mu def la tout bañ gañewaat ko ñëpp gis nañ mbirum 94 milliards yi li ko waraloon ba tax tey jii nii ki nga xam ni moom moo di Mamour Diallo Ousmane Sonko di wax ne moom waxu complot yi ndax lam ko defoon biir impôt et domaine la mënul supporter ba tey ndax feeñal ay ëyib yoo xam ni moom da cee nekkoon te moom ci lu jub képp lay dox ci lu baax kese lay dox ci lekk loo xam ni daf koy lew ak itam li muy yóbbul ab njabootam nekk loo xam ni dafay dal ab xelam kon nag gone yi bu ñuy wax Ousmane Sonko mu sell mi par rapport ak loolu moom moo tax dañ fee gis yeneen i politiciens yoo xam ne ñi ngi fi ñu ci bëree bëree bëri am na ci ay services yoo xam ne jot nañu faa jaar ñu leen di tudd ci ay koppar yoo xam ne dañ ne dañ koo luubal état mosu koo leeral kenn xamu ci dara waaye ak lu mënti xew tudd nañ leen ci te ñoom indi wuñ ci justification demuñu fenn itam di jéem a setal seen bopp Ousmane Sonko nag dafa ne man depuis bi ma jógee fonction publique ba léegi nañ ma génne lépp loo xam ne maa ko fa def teg ko sur table ñu xool ndax man mii am na lu ma fa jot a luubal te loolu ba mu koy def xalaatul woon ne dina mës a nekk ji ku mën a nekk président de la république du Sénégal xalaatul woon ne dina nekk ji ëllëg koo xam ni ndaw ñi ba ci mag ñi dinañ am benn confiance bi ci moom kon lu jub ak lu sell képp ci la nekkoon moo waral Ousmane Sonko mu sell mi ndax dañoo gis ni jaar-jaar bi nga xam ne daal dina koy am dafa jub en plus de cela bi muy nekk Université Gaston Berger de Saint-Louis ñëpp dégg nañ ko ba muy dajee ak doomu daara yi moom dafa am lenn lu mu doon dundee nekkul woon ci ay mbiru caaxaan au contraire saa su amaan temps libre da daan dem di jéem a xool naka lay gëstoo dans le monde spirituel maanaam di jàng diine di jéem a xam itam préceptes yi nga xam ne moo koy permettre moom mu gën a asseoir ab ngëm-ngëmam gën a asseoir ab selluteem comme ni nga xam ni Cheikh Yérim sekk noonu la koy bañee dégg moo tax nag bu Cheikh Yérim sekk ne ku sell mënul jiite am réew loolu amul ku sell mën naa jiite am réew ci naka di jub di jubal di sell ak a sellal maanaam lépp loo xam ni alalu réew mi la ñu delloo ko ci réew mi ci na mu waree képp koo xam ne dañ laa dénk ab service nga liggéey ca liggéey bu mucc ayib liggéey boo xam ne du am benn luubal koppar yi ñu lay jox itam dërëm bu ci gën a tuuti nga mën a wax ni fii la jaar lii lañ ko jëriñoo lii lañ ci def lii lañ ci am comme résultat loolu la ñuy xaar ci képp koo xam ne dañ laa daal di dénk moo waral Ousmane Sonko ni sell kese ak jub mooy tax suñu réew mii ñu mën koo daal di defar ba tax moom turu Ousmane Sonko mu sell mi ñu ko koy daal di dàkk dàkkantalee léegi bu fekkente ne dañoo war a jiite am réew te ña ko yor setuñu ñu selluñu ñoom loo leen jox rek ñi ngi jël di def seen ay compte jël di ko pasar pasaree nu mu leen neexee sóoraale wuñ ci seen diggante ak seen borom sóoraale wuñ ci seen diggante ak seen moroom ndax réew mi dina mës a yegg fi nga xam ni fa lañ koy daal di xaar foofu la question bi daal di nekk moo tax bu Cheikh Yérim sekk taxawee ne ku sell mënul jiite am réew pour mu développer loolu du dëgg loolu amul teguñ ko fenn ndax kat à chaque fois dafa am loo xam ni Père Keba may daga daan dal di wax mu daan woote le travail dans l'éthique da daan woote woo à ce que nañu def liggéey bu mucc ayib boo xam ni dañ koy teg ci éthique éthique nag baatu tubaab la rekk ay xeetu règle morale yoo xam ne nit ki daf ko war a daal di am ngir mën a jëflante dans la société waaw loolu buñ ko tegee ci wolof lu muy doon mooy jub mooy set mooy sell mooy di jubal mooy di sellal itam lépp loo xam ne yow da cee daal di nekk loolu képp lay daal di signifier bu ko defee di nga jëflante ak doomu aadama yi par rapport ak koppar gi ñu la daal di dénk ci anam bu mucc ayib boo xam ne kenn du la ci daal di mës a mere waaye itam képp koo xam ne rek jëflante nga ak moom dina xam ne kat kii def na ci lépp li nga xam ni moom la am réewam doon xaar ci moom loolu mooy li nga xam ni moom la ñu soxla ci suñu Sénégal te mooy li ñu mën a jëmale kanam mooy itam li mën a jëmmal suñu am réew de telle sorte que képp koo xam ne rek yow dink nañ la ab service nga mën ci indi ay résultats yu positif te résultat yooyu yëpp ñu ko dajalee moom mooy dema dema dem ba nekk lu am solo pour suñu am réew dem ci développement dem ci sukkaliku goo xam ne ñëpp dañ ciy mën a jëriñu waaye du nekk benn pàcc rek ci réew mi benn groupuscule sénégalais boo xam ne ñoom seen mbiri bopp dong moo leen yitteel daal di jël koppari réew mi di pasar di ci caaxaan ak a fo comme actuellement lu bëree bëri li nga xam ni ñu ngi koy gis ci suñu Sénégal rapport bu Cour des comptes rek bii weesu doy na ci ab exemple am ci yeneen i scandale yoo xam ni dañ koy dégg bu fekkonte ne ña ñu dénk sell nañ comme niñ koy dàkkantelee Ousmane Sonko konoon yooyu yëpp du ci daal di am ndax duñ ci soxla dërëm duñ ci soxla fifteen duñu am lenn luñ ci wër loo xam ni dañ koy yóbbul seen njaboot te xam nañ xel que ni loolu ñuy lekkaloo seen ay njaboot nekkut lu baax nekkul ñoom la moo waral Cheikh Yérim Seck kàddu yooyu mu yëkkati na ko jël teg ko de côté bu fekkente ne nag wàllum gérer am réew moo tax mu naan nit ki warul nekk ku sell foofu juub na képp koo xam ni yow am na sellte gu nekk ci yow di nga gérer sa dëkk ca na mu waree te du am lenn loo xam ni yow sa waa dëkk dañ koy daal di gis comme sikk ci yow te ba noppi itam di nga leen amal njëriñ loolu képp la ñu soxla amalal njëriñ sawaa réew koppar yi ñu la denk nga gérer ko ci ni mu waree am jëflante bu rafet itam ak ñoom faree ci opposition bi nga may leen ñu def seen politique ca mu waree ndax dañoo nekk ci réewum démocratie démocratie waaye nag set sell jub ak jubal bokk na ci li nga xam ne critère la ngir ku ñuy tànn mu war a jiite suñu Sénégal ndax bu ñu jëlee réew mi kat jox ko ay sàcc jox ko ñoo xam ne ay bandi financier lañ jox ko ñoo xam ne seen i mbiri bopp lañ fi nekkal népotisme la ñuy dundee jël justice bi instrumentaliser ko noot ko ba ñoom lu ñu leen wax rek lañuy ñuy daal di def loolu amul njëriñ amul sens mënul développer am réew kon jub ak jubal sell ak sellal mooy tax am réew nekk ay taalibe leen na lañ jublu ci ñoom moo ñu def leen ba ñu nekk ñoom ñoo xam ne dañuy am ay xol yu sell xol yu laab xol yoo xam ni lépp lu ñu jublu rek dañ ciy def lu baax di ci wax lu baax di si jëflante lu baax kon itam ki nga xam ne day dund ci wàllu moral bëgg éthique ak déontologie loolu itam lay séntu ngir daal di koy am ki nga xam ne itam dafa nekk ci société dafa war a nekk ku ko amal njëriñ te société loolu la soxla ngir daal di mën a jëm kanam soxlawul ay délinquants ay voleurs des truands képp la ñuy nekkee mooy seen i mbiri bopp seeni i intérêt bopp te suñu réew mi kat soxla nañ fi sellte moo waral xale yi di ko woowee Ousmane Sonko mu sell mi moom Cheikh Yérim sekk nga jéem am boobu lépp tur moo gën foofu muy jéem a génnee ay ayibu doomu aadama alors que moom la ma yor yëpp ci ay défaut buñ ko doon étaler mën na ëpp ab livre ba tax na sax titre livre bi nga xam ni moom la ñëpp di xaar mooy Cheikh Yérim Seck face à Astou Ndione passage sous scanner d'un mariage sénégalais chamboulé par des mensonges AGT News